waaj a ñëw. indil ko moo tax yow dañ lay jël def la wutal la benn CDI parce que tout simplement yow sa liggéey yëpp lenn kese la mooy bu ñu la indee dañu saagal. très bien foo laa doon mhm. kese zéro maanaam doxoo ko waxoo ba pare la nga xëy benn jour rek ñu ne la kaay nga dem saaga diw. ba pare xale bu ndaw yow nga war a toog sa ginnaaw clavier. di saaga. kese. Mhm. ak di xool échec gu ñoo xam ne. non dafa am na yoo xam dafa rusul man dama ciy am ñoo xam ne naturellement dama leen rus quoi mais su ma leen gis ñu def yenn yi ci réseaux sociaux dama naan mais ñii. mais ñii dañoo manqué. bu ñuy def daal toog seen ginnaaw machine loolu moom garaaw. waaw man ba pare looloo ci gën a looloo ma moom dafa dogal sax ne euh, ñun suñ dëkkandoo yi fii nii moom daanaka moom ñoom moom ñoom ñoom yàlla dogal na ne xam nañ ñu man du may kenn ñun moom ay toog fii di menacer que wala di wut nit ne la demal nga defi nangam man damay taxaw nii comme li Ousmane Sonko defoon nii taxaw nii de 2015 à 2022 ma ne Aliou mii daa war a ñibbi ma la wàccuma la ba keroog laa lay wax nii ngay takk say bagages yi dem ñu ñaanalante. bu ñu rombantee ci mbedd bi nag léegi mën nañoo nuyoo. jeex man daal li ma gëm. mais pour jël la boole la ak ay nit mais nit ñooñu ma lay booleel ñoo njëkk a ñàkk fayda non man maay jiite peloton bi ci kanam taxaw. kese géej waay gépp xam ne Ahmed Aïdara mii kat objectif bii la bu bi jeexee li naan bu jeexee jeex na. bu jeexee jeex na bu ñu rombante bu ñu neexee ñu nuyoonte mais tant que ña nga ca du ma la wàcc du la may jàpp. kese mooy position mais position boo xam ne yow safoo yàpp safoo jën au contraire da ngay attaquer une opposition buy man nekkal ci biir opposition bi ñuy laam-laamee naan ma ki ngay liggéeyee liggéeyaloo ma ki man intéressé wu ma du ma la attaqué. Mm-hmm. du ma la attaqué dama lay bàyyi noonu rek ngay tënax tënax. Mm-hmm. ba keroog rek may gis. ngay attaqué opposition bi boo ko defee nag ma ne la sa waaye da ngay saf yàpp wala nga saf. kese benn cible la ñu am mooy Macky Sall ak waa këram. Mm-hmm. mais candidat bi attaqué opposition. yaa ngi woon fu am solo muy ci ci salaire yi jamono ji ñu toll mu yéegee. salaire. Mm-hmm. salaire yi moo feeñee. waaw nañ dem ci mbay mi. Mm-hmm. sugu nañ dem ci wàllu mbay mi mbay moo xamante ni nii depuis Mathusalem ba léegi nii la fi Abdou Diouf bawoon Abdoulaye Wade dikk Macky dikk. même système bi la matériel agricole semence engrais matériel agricole ñu jël ñetti machine yóbbu bu ñu ko tegee fii si ses gars yi ñëw filmer léegi léegi léegi léegi ci benn commune ngay dugg ñaari machine ñoo fay dugg wala benn <laughs> nañ doon béyee lañuy ñuy ba léegi jaar fas nga yor jiital ko takk machine sa jarbaar a sa doom nekk ci kanam ngay dàq mun ngeen def ci tool yi lu toll ak weeru yàlla yoo xamante ne doo jot but ba but su ay loolu jotul pour ñu soppi ko. bi mu jotee pour ñu soppi ko sax dafa yàgg. wala demal ci napp gi. en tout cas Diomaye moom xam na bu baax lu jëm ci wàllum mbay. demal ah kon ki njëkk a ñaaw nekk doomu béykat. am na loo xam ne am na loo xam ne tu n'as même pas besoin d'avoir vu de nekk béykat sax nekk béykat sax pour ki ko on est au vingt-et-unième siècle. Mm-hmm. am na yoo xam ne t'as pas t'as pas besoin de faire les universités de Boston. xam nga li ma la wala de je ne pas ou de Versailles wala de l'université xaw ma lan da Paris. comme dina Sciences Po de pour xam ba xam. waaw mais mbayuk Sénégal gii lii moo koy soppi wala lii. au contraire comme aussi tu n'as pas besoin de dire x a x b ak yooyu un plus un ngay jël. tey professeur. non non dafa yomb dafa yomb vous comprenez. Mm-hmm. nga ñëw ci napp gi ñaata nappkat ñoom ñoo taxaw fii nii ñun ñu demoon di couvrir seeni manifestation ñu ne dañoo jël napp gi jox ko chinois yoo xamante ne nii seen benn mbaal bu ñu ko sànnee nombre de tonnes ñu indi ci jën ñoom mën nañoo am ci weer wi lu tolloog ñaari weer jaara loolu duñ ko am. billaay billaay napp gi. Hmm. surtout napp gi. gars yi amuñu ay moyens. ci lii lañ yaakaar pour dund jën yëpp nga jël ko yóbbu ko bitim réew. billaay dégg gerte gi léegi nga jël yóbbu bitim réew. te mu ne suñu yëf ñu koy bañ. lu tax ba xale yi duñ ko topp foo yóbbu alalu jàmbur mu topp la xale yi jël gaal gi nii jëlum nii gaal gi nii par hasard de. waaw lim moom lañ jël nii di yóbbu ca tubaab yi. boo booy jël gaal topp alal jooju. kese. Mm-hmm. moom la ñuy teddi noonu bu ëllëgee pour indiwaat xaalis bi fii laajteel ñu nekk bitim réew ñaata milliards la ñuy dugal ci dëkk bi par par par an demal ci transfert yi demal ministère rek ñu expliqué. mais koo jël alalam jaar fii di daw mu topp la ne sàccee waaw booy dañu topp noonu seen alal ji xanaa xamoo di yuuxoo ne sàcce yi. Mhm. dëgg la. wallaay booy booy jëluñu gaal nii rek ne dañuy dem wala dañuy dem Nicaragua bi. dafa mel jaar fii ci suuf la jël gaal naan dañuy dem dañuy dem Europe. dafa mel jaar yoonu Maroc ak Espagne ak jël désert bi de. parce que seen alal ji nga xam ne moom lañ war a dundee fii la ñu jël yóbbu ko loolu yëpp ay priorité la nga ñëw démb rek ci li 24 heures bind. ci lu 24 heures bind. 10 000 milliards. 1000 milliards 600. ay denrées de première nécessité mais mi ñuy jëlee bitim réew waa jaara est-ce que xam nga ne soble ñàkkoon na fee ñàkk a ñàkk a ñàkk ba 600000 euh, tonnes Maroc dimbali ñu ko xaw ma 6000 tonnes. loolu daa yàgg coowal soble bi. ngay dem ay Hollande ak di dem Maroc pour ñoom ñu ravitailler la en soble alors que yow bay soble. di bay gerte di jënd diwlin. di bay gerte di jënd diwlin. dégg nga. Mhm. un million de tonnes de ceeb da ngay bay ceeb ngay bay suukar suukar si di jóge Brésil. te yow ci sa ñaari produit jëli jëli yëpp mais yow sa ñaari produit yi kese boo ko jëloo mën na la permettre nga am échange <coughs> Sénégal la Sénégal fait partie la côte sénégalaise fait partie des côte les plus poissonneuses au monde si elle ne l'est pas fi ëpp jën ci àdduna bi ci la bokk yaboy téeméer am na jaar wala <coughs> mais yaboy téeméer koo xam ne yow sa géej ci géej yi ëpp jën ci àdduna bi la bokk centre ville gerte caaf fukki dërëm amu fa cent franc moo fa am te mun nga koo ngëb sa loxo. ak butéelu deux mille. ak butéelu deux mille. <laughs> léegi géejewaay gerte caaf juróom amatu fi mais fukki dërëm après dañuy dem orange bu njëkk loolu lu yàggul dara benn juróom da nga ko doon am orange léegi cent franc gars yi yor puus puus yi. ak dix quinze ñetti dërëm bu ñaar dërëmu ton. mais mais xam nga. juróomi dërëm la nga daan dékkee booy dem. mais xam nga sax monsieur le maire loolu sax peut-être. mën nañ ñi ay jamono la jamono dox na. Ah, capital humain bi yokku na mais nga nga am fariñ am jën. wow bu doon lu ñu amul la ñu ne fii mënatuñoo am ñetti dërëm mburu ñu am dërëmu too mais yow da koo am mais ñu privé la ko ba pare jël ko jox ko ay étranger ñu koy dundee jaar kii yow mi nga xam ne nag yow yow yow yow sa buntu kër la ñuy bay la ñuy bayee nii nii nii dugub nii fi la ñuy bayee nii dugub nii di defar ay mburu dugub te yow yow mburu bi mënoo ko lekk. ya booy yenn jën yu mag yi moom la ñuy dundee. am na loo xam ne daal jaara ci affaire koom-koom bi nga wax. foofu nag le gouvernement un e bu Ousmane Sonko daf ci war a ferme loolu moom mooy dëkk xam na laa bëgg a expliquer ko mhm, jaara mënuñ di bay soble ba pare sénégalais yi bëgg a taxaw ne suñ soble bi dafa am ndox soble bi baaxul yow gouvernement wu Sénégal ngay wute soble ay Maroc ak ay Hollande ak yooyu di ñëw alors jusqu'à dire que njëgu soble bi man dama koy subventionné. ba institution de Bretton Woods yi banque mondiale ak FMI naan la sa sa subvention bi nga def ci nangam dindi ko mais subvention moo waru Sénégalais yi dañ lay war a exiger ñuy lekk soblewu réew mi. mais wala boo leen exigeant nga def ci ay amélioration waaye non mooy mesure d' accompagnement yi nga xamante ne nii le ministère de l' agriculture ñun tamit kenn kenn rawuñu de parce que ñun aussi yaruñu suñu bopp dañ fiy bàyyi soble mbay jaara jaara jaara jaara mënoo di bay ceeb ba pare di dem di jëndi ay un million de tonnes de ceeb su gaa yi waxee ñu ne non suñ jigéen yi nee nañ suñu ceeb bi ñuy béy fii defar bi dafa xaw a métti defar bi dafa xaw a métti waa léegi nan la nguur gi ci boppam di accompagner baykat yi ba nga xam ne ceeb ba ca boppam mm-hmm. mais defar bi dina mel neneen lu dul nii mu mel nii mais pourquoi ñu bàyyi leen noonu noonu noonu loolu mais imagine yow nga am ay tonne tonne tonne tonne tonne soble soble yi foofu la ñuy nekk amuñu ay machine ba nëb ba yàqu nit ñi jël ko daal di koy tuur au moment où yow yaa ngi génne si sa budget ay milliards yi milliards dem di jëndi soble waaw nga am banaana fii ci biir réew bi am mango mango yi gars yi sa waay yenn saa yi boo ñëwee syndicat da ngay yéemu ci yàlla bu jógee Casamance bu ñëw balaa yegg si genn wàll gi yàqu yàqu parce que nguur gi accompagné wul ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñoom ñooy baykat yi ba pare Gambie bi nekkoon enclave ci yow géographiquement parlant yow yaa mujj nekk enclave parce que pour nga jaar fa da ngay fay wala il faut nga def wiiri wiiri boo wiiree sa xaaju produit yëpp yàqu. wiiri yoonu ma la maire wax yan politique d' compagnement nga war a mën a ñoo teg. Mhm. te bañ nañ ko ba defar pont Farafeññi bi ba nit ñi jàpp ne léegi moom vraiment. mais ba ñu moom nice. Sénégal de. mais mais mais jaara boo bëggee dégg dëgg te lii ñuy wax nii yëpp Ousmane Sonko ñu ko gën a xam fop wallaahi looloo tax mu taxaw ba ci àgg ne day laaj. kese moo ñu ko gën a xam fop léegi nag ndimbal li fii la ne. Mhm. sénégalais ku ci nekk. ci sa manière nga jàpp ci xeex bi. am na ñoo xam ne duñ ci jàpp. Hmm. c'est normal. Hmm. sa wujj moom bu lay sëlam moom. doo set mukk ci àddina <laughs> suuf gi lay tàmbalee sikkin bi yéeg ci kaw di def nii xaw ma noonu kañ ngay set. Hmm. bàyyi fa say laas ak say bagaas <laughs> dégg nga loolu jaar am na ñoo xam ne duñ ci jàpp et ils sont dans le rôle. wallaahi. dëgg loolu dëgg. ñu baleen ca mais majorité sénégalais yi nga xam ne cinquante quatre virgule vingt six pour cent yi nga xam ne ñoom ñoo jàppale Bassirou Diomaye Diakhar Faye votel que mm-hmm. opposition bi nga xamante ni nii nekkoon opposition boo xam ne dañ doon attaquer l'opposition mm-hmm. société civile mm-hmm. la presse société civile moom ak presse sax taamu wuñ ci ñoom ñu nekk fi di xalam ak yooyu ñoom dañuy alerter dañuy alerte kooku tamit bu yeboo non nouveau gouvernement la bàyyi ci xel. Mhm. waaw. ko defee nag ñuy alerte léegi-léegi am ñoo xam ne ñu ngay yëngu fële ñu gaaw président bi ne ah bon. Mhm. mais loolu loolu doy na awara man je l'ai suivi ce matin à la rajo. et ça c'est grave. Mhm. dana wéy léegi-léegi parce que ñoom loolu moom mooy seen rôle informer juste et vrai. tout à fait. ah oui mais opposition bi nag moom ñooñu moom nañ opposé wu. su ko gars yi nañ leen poussé ñu dem opposé wu. bu leen encouragé de booy wax naa non ñoom ñëpp a ci war a ñëw jàpp actuellement sax 100 pour 100 mënuñ cee jàpp yàlla ci boppam. amul 100 réew sax day am kujje dama ne ba booy waaye kujje sax day doxal te kujje day doxalub réew. kujje day doxalub réew. Mhm. boo leen di may karkanam gu ndaw ñu piis la ñoo toog sa wet. waaye fii gisuma gisaguma ko fi pare de gars yi daa mel ni pare de. pour lan opposé wu. dañoo mujjee sax dem làqatu nag déggatoo kenn. pour lan opposé wu. dinañ opposé wu. kañ instant bii nii nii. ah daa teel non xëy na dafa teel ak riir bi yooyu <laughs> mais am na ñoo xam ne moom ñoom ñoom ñoom li ñu war a def mooy Diomaye président Diomaye prêté na serment passation de pouvoir am na ñu génnee communiqué. waaw mm-hmm. ah. félicité nañ la yàlla na la jëkk. Mm-hmm. bu gaal gi teeree ñun la teeral bu suuxee ñun la suuxal. ñoo ngi lay teg bët nag. nous sommes et nous resterons dans l'opposition et nous incarnerons une opposition radicale kooku nag moom na ko xam dara du yomb benn activiste temps jël na ko de jël na commencé woon na génn moom kan la jël temps jël na ko temps yi foo dugg ci réseau yi moom rek ngay indien yi sam ko ni weñ ay amet indien yi kan la ban la jaar jaar day gis nga activiste bi fi doon woote des ah pour ñu libérer gars yi. Mhm. Ah, mais loolu nag loolu nañ leen libérer sax moom dafa yàkkamti woon rek. mais loolu tam mooy mooy loolu tam mooy rôle activiste nag. waaw ah. amiin ah, hmm, ngeen bàyyi. Mhm. ñoom nañ nañ nañ nañ ñoom il ñoom il faut mu dugg ci biir parti bi. en tout cas ak kum ci motu doom bi yóbboo nga. jël say dama ne dama ne à moins que mu dugg ci biir parti bi. Mhm. mais tant mi ngi nekk activiste. xanaa nga dugg boo faree ci biir parti nag. nga wane ne man ci parti laa ne parce que aussi. parti itam day am discipline. mënoo nekk ne gars man damay jàppale ñii ba pare. nekk ca biir de xajamal ak dugg na fi gën a fi parce que yaa ngi teg nit ñi que mais bu dee nag activiste nga. Hmm. ah activiste kay comme son nom l'indi. activiste moom da ngay yëngu moom. da ngay yëngu da yëngu di ko yëngal ba muy riir. da ngay yëngu ba muy riir. Ah. jamonoy Macky di jamonoy kii de. <laughs> peut-être ci kanam. <laughs> waaw non c'est ça que j'ai dit dama ne <laughs> non jaara dama ne. Hmm. ñi nga xam ne ay activistes lañ nañ leen bàyyi ñu def seen rôle ñi nga xam ne opposition am nañ ci plein droit li may bañ moom mooy opposition bu fi nekk di piis mm-hmm. ak di buruxlu. yéen daal nekkoon ngeen au pouvoir pendant mm-hmm. nañ leen mm-hmm. am leen ngor. bàyyi leen ñi gagné ñi déroulé point final. voilà waaw. am na solo euh, gis nga comme ci li nga doon wax. Mhm. gis nga mesure d' accompagnement bi ñu mën a def peut-être ci ceeb beeg ci soble bi. Mhm. ba ñu ba ñu lekkaab wala book ba ñu euh, mën koo accepter. Ah waaw euh, gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga honorable li nga sol nii. waaw bu njëkk daanoo génn télé di ko sol. yoroo la mais léegi dañ naan costume africain mais lan moo tax parce que gars yi am nañ ci accès.